ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi jàkkaarloo ñun al azhar touba com seen mbokk Mouhamadou Mourtada Mbacké Abdoul Baqi moo dellusiwaat di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa di am yéeni yee salaat jataay am ak yéen di ci jéem téereb sëriñ tubaab bi mu taalif jëme ko ci wàllu teggin tudde ko Nahju Qadaa'il Haaj ñu ngi jeexaloon fam doon waxe jëm ci ay soññe yoo xam ne da koy jëmale ci ki nga xam ne day sàkku xam-xam ñu war a jëm tey ci fi muy soññee jëm ci ni ñuy àndee kub sëriñ sëriñ bi nga xam ne da koy topp ngir am ngir mu tàggat la ci yoonu yàlla ngir mu ngir mu sellal la ngir mu àggale la ci yàlla moo tax mu ne suma topp bu ñu ne suma mooy ginnaaw ba rek suma topp achara mu junju ila kayfiyati taaddu bi jëm ci melow tegginu ma cheikhil bi ànd ak sëriñ bi yare wal muallimi ak bi ay jàngale kon day jàngale ni ñuy tegginoo ànd ak sëriñ bi lay bi nga bi lay ci àll ak sëriñ bi lay jàngal ndax seexu taalim dafa am seexu tarbiya am seexu tarqiya am kon fii daf fi jàngale ni ngay ànd ak seexu ak seexu taalim kon moo tax mu ne ginnaaw ba nag moo junj ci ni nga xam ne noonu lañuy ñuy tegginoo di ko àndee ak sëriñ bi nga xam ne day jàngale ak sëriñ bi yare wal axi ak mbokk xaqan ci dëgg-dëgg wal saaxibi ak àndandoo sidqan ci dëggu mu ne dañuy ginnaaw bi day leeral jëm ci nit ñi tegginoo ànd ak sa mbokk mi nga xam ne mbokk la dëgg dëgg ak sa àndandoo bi nga xam ne àndandoo bu dëggu la bu la def ab àndandoo la ca dëggu ci fa qaala mu wax wa qaayata tawxiiri wa qaayata yi ne na dayow dayow dayob wegeel dayob wegeel mooy fu wegeel yem rek waqiir wegal seex ak sëriñ wajaanhu te def ko sayidan muy aw sang la hëb mayal lahu ñel ko xayraka saw saw yiw waqir wegal cheikhaka sab sëriñ gaayata tawqiiri dayob wegeel dayob wegeel mooy fu wegeel yam rek wajaanhu te def ko sayidan muy ab sang hëb mayal lahu ñel ko xayraka saw yiw waqdi te fajal alxawaaiya aajo ya lahu ñel ko ma li fi ak yaa ngi dund insta dund nga maanaam li fi ak insta dund nga bil bas li ci joxe wal xidmati ak ci liggéeyal ma mastataata loo man ma istataata mastataata loo man dafa wax ne sëriñ bi nga xam ne daf lay yar ak sëriñ bi lay jàngal nee na leen wekk na leen fonk fu ak wegeel yem day day wegeel mooy fu ak na fa àgg ak ñoom wegeel mooy fonkeel ak màggal te nee na moom sëriñ boobu nanga ko def muy sab sang maanaam muy sa kilifa sa njiit koo xam ne dangay danga koy da koy teg ci sa kaw euh, jiital ko nee na loo am ci lu baax dee ko jox dee ko may moom sa sëriñ boobu lay jàngal di la yar nee na ay aajoom dee ko faj lépp loo xam ne xam nga ne itteewoo na ko rek na na nga ca def la nga man te jéem ca la nga ca mënul nee loolu mu ngi la koy digal li fi yaa ngi dund di ànd ak sa sëriñ boobu nee na na nga faj aajoom yi ni nga koy faje nag mooy di ko jox li nga yor tam soxla ko te itam di ko liggéeyal ci sa doole ci sa sa doole waaw noonu la fajee aajo fajee aajo yi ab sëriñ dee ko jox li nga yor tam ittewoo ko te di ko liggéeyal waaw ne loolu nag na ko def li fi yaa ngi koy man li fi yàlla man loolu na la ko rek deel sax di ko def moom sa sëriñ boobu nga xam ne moo lay jàngal ak di la yar nee na mi ngi lay sant nga weg ko wegeel fam ba fa wegeel gu mag mag te loo am ci lu baax nga di ko ko defal te def ko muy saf sang te di ko fajal ay aajoom boo yoree de ko jox te so soxlaa ko ko liggéeyal nga di ko liggéeyal waaw ne loolu noonu nga war a àndi sa sëriñ bi lay jàngal ak sa sëriñ bi xam ne moo lay yar yaani dana itteel annahu ne moom yaamuru ko dalay digal bi an tuwaqirati nga ci nga weg cheikhaka sa sëriñ wa taqdiya ak nga faj xawaayijahu ay aajoom mastataata loo man wala na ne maa istataata man nga ko wajtani ban wattandikul <coughs> kon <coughs> ah, wajtani ban wa mazhan ak kaf wa saxaban ak coow amaama cheikhika ci kanamu sa sëriñ isaarum ta ndem sàkk nga al adab teggin nee na bu fekkee danga bëgg am ay teggin mooy doxalin wu rafet ci sa kanamu sëriñ nee nanga nga moytu ñetti yëf yi mu lay tere mooy di ree di ree ci sa kanamu sëriñ ak di kaf ci sa kanamu sëriñ ak di coow ci sa kanamu sëriñ nee na yooyu yëpp bi ci ne dafa dàqonteeg ay teggin yi nga war a àndeeg sa kan sa sëriñ kon na nga moytu di ko def ci teewaayam nee na wala takkun nekk dalti faatin di boroomu gestu la day fa la day fa moom wa zaata xarukin ak di boroomu yëngu ilal jihaadi jëm ci wàll yi jëm ci wàll yi mooy ci côté ci wet yi day joor ak càmmooñ ak ginnaaw ak wet yëpp nee na mi ngi lay déng tam boo nekkee fi sa sëriñ buy faral buy faral bul faral di yëngatu yëngatu yu bari di baj baji ak di wëndeel sa bopp fu ne nga jëmale ko fa nee loolu tam bokkul ci teggin yi nga xam ne moom nga war a àndeek sa sëriñ kon daal sa sëriñ boo nekkee fa moom dangaa war a amuk dal nee na wala tukassir te bul bari wax indahu fa moom bal an li fi nekk ku nekkal samuutan di am noppi waa kon di li taxuusa ngir nga làq rushdahu ak njubam nee na boo nekkee fasab sëriñ tam na nga moytu di wax wax yu bari li li am kay mooy dangaa war a bàyyi wax ju bari ba noppi noppi bañu wax bañ wax li fi ak sàkkuwul ci yow wax wala boog nga dem ba xam ne wax mënta ñàkk comme ni mu la ko junjee woon ca ginnaaw ni nga bi mu lay leeral ni ngay àndeek ki la mag ak ki la gën a màgg nee eh, na loolu bu fekkee ba nga am njub gi nga xam ne moom la sa sëriñ yor nee na nanga nga ànd moom noonu wala tusaaxibhu te bul àndanteeg moom bila tabjilin ci lu dul ak màggal fii zamanin ci jamono kada bi haazal jiili niki baaxu gilemaas niki baaxu gilemaas dafa wax ne bul def ni nga xam ne noonu la ma maas gi mu mu mu jamonoonteel doon def ah, kon nag rawatina suñ maas gi niñ doon def nga xam ne dañuy ànd ak seen sëriñ ba noppi mel ne ko ànd ak seen moroom duñ yëgal seen yaram ne ki ñu àndal mooy seen sëriñ nee loolu bul ko def bul ànd ak moom te moo te màggaloo ko te joxoo ko cër ba ku la gis xam ne yow mii ànd nga ak sa sëriñ moo tax mu ne laa tajaalalu bul ko def misla saaxibin kem ab àndandoo xaadara boobu teew na illa lazi lu dul loo xam ne lu dul la nga xam ne laa budda déet am pexe minu ci moom min dararin ci ay lor laa tajaalunu bil ko def misla saaxibin kem ab àndandoo xadara boobu teew na illa lazi ndare la nga xam ne laa budda am pexe minu ci moom min dararin ci ay lor bëgg a wax mooy dalay tere nga yemale ko boo àndeek moom mo sa sëriñ boobu nga def ko ni ngay nga àndeek moom ni ngay àndeek sa moroom ne loolu bul ko def na nga ko ràññ na ko ràññale boo àndeek moom jox ko cër ba mu ne yow mii def nga ko sëriñ boo àndeek moom ci teewaayu nit ñi ak ci ak ci wéetaay na fenn bul ko def ne sa moroom lu dul ci tolluwaay yi nga xam ne amoo ci benn pexe maanaam tolluwaay yi nga xam ne lor maanaam tolluwaay lor la nga xam ne boo ko yemalewut ak sa bopp da ngay loro loru ju loru loru ju jéggi dayoo loolu mooy ilalasi laabu dem yu min dara loolu li nga xam ne amoo ci fexe muy ay lor nga xam ne maanaam boo ko yemalewut sa bopp foofu lor lay jur ju méttee métti misaal boo àndoon ak moom tey ci waruwaay woo xam ne maanaam misaal ngeen ànd yéegandoo ci ab sareet eh, xam nga sareet moom amul fu ñu mën a yéeg fu ci ci kaw rek kon yéen a mën a àndandoo toog ci kaw soo ko fonkee ba ne da ngay dox topp ci sareet bi te saret bi jëm fu fu sore sori maanaam su boobaa dana jural lor kon lor jooju moo tax danañ la may su boobaa nga ànd ak moom ci kaw saret bi lu kon ci tolluwaay yu mel rek la wax moom nga war moom nga nga war nga ko war sa bopp waaye bu dul lu mel noonu bul ko yemaleeg sa bopp mu ne wastami wastami allazi déglul li nga xam ne dallaka tegtal na la ali ci moom wastamia déglul allazi li nga xam ne dallaka alayhi tegtal na la ko tegtal na la ko ne li nga xam ne mi la koy junj di la ko leeral ci ay xeeti xam-xam ak ay xeeti mbaax nee de ko déglu mu baadiran di aji gaawantu jëm ca moom boo ko dégloo ba xam ko tam na nga gaawantu def ko gaawantu def ko ci saa si bañ ko waaj wala abadhu doonte bañ na ko nafsaka sa bopp sa bakkan sax loolu mu lay tegtal ci ay mbaax ak ci ay neexul sa bakkan sax na ko def te nga xam ne sa njariñ la wanzur xoolal ilaa ma jëm ci li nga xam ne xad nahaaka dalaa tere anhu walis ko wa firrate dawal minhu ci moom wajtanib te wattandikul moytandikul hawaaka wala wajtanib te teetal teet mooy moytandiku hawaaka sa bëgg-bëgg bakkeen sa bànneex nee na li nga xam ne itam danga nee na foo toll den xool li nga xam ne moom la lay tere boo xoolee ba xam ne lii sama sëriñ tere na ma ko nee na su boobaa nag na ko daw na ko daw te it donte sax loola dafa dëppoog sa bakkan moo neex sa bakkan nee na su boobaa ko daw te bul toof sa bakkan te bul toof sa bëgg-bëggu bakkan yaa ni dana itteel ki jàng dana ko itteel mu xam ci way yooyu mu xam annahu ne moom yanhaaka dalay tere ani dax ki ci ree wa kasratil mazhi ak bari kaf wa saxa bi ak coow bi xadratihi ci teewaayam moom sëriñ bi wa kasratil iltifaati ak bari gestu maahu ànd ak moom loolu maanaa mi leer loolu nañ wa an an ba tey day tere ki mooy jàng la koy tere mu def ko moom àndal sëriñam ka saaxibil niki niki àndandoo illaa ma ndare loo xam ne la budda déet pexe minhu ci moom maanaam il munta ñàkk min min a daruraati ci ay lor loolu leeraloon naa ko wa an ak nga déglu jamia ma mbooleem li nga xam ne yaamuruka dalay digal bi ci moom wa tubaadirahu te nga koy gaawee te nga koy gaawee loolu leeraloon naa ko wa in karihatu ak donte sib na ko nafsuka sa bakkan Euh, loolu leeraloon naa ko mooy lim lay digal nga déglu ko ba xam ko ni lii la lim lay tere nga déglu ko ba xam ne lii la tere nga gaaw def ko te doonte sax sa bakkan bëggu ko sax bëggul def gi sax na ko euh, na nga ko def maanaam lim lay digal na nga xool ba xam ne lii la lay def ko waaw waaw wa an tansur ak nga xool ilaa ma jëm ci li xam ne yan xaaka dana la ko tere dana la tere anhu ci moom wa tax talisa te ngay wattandiku minhu ci moom nee na waxtu bu ne lim ngay xool lim lay tere ba xam ko daal di koy wattandiku te mooy doo topp sa bakkan wala taqrabu te bul ko jege wala taqrabu ak nga bañ koo jege abadan cig sax nee na wala tasal bul dañ moom sa ihda indi borom mu may ilay ci moom ma ci loo xam ne istataata nga ko min ataayan ci may lahu ñel ko nee bul dañ yow ki may déglu bul dañ di may sa sëriñ bi lépp loo xam ne mën nga ko may ci ay xeeti may yoo xam ne yàlla mën na na la ko footoon rek dee ko yëgat di ko jox ndax seen bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci ab xadiis bu mu wax ne tahaadu tahaabu maanaam nee na bu ngeen dee mayante mayante googu day tax ngeen di soppante koo yëkkati saa daan jox ko rek day daal dalay daal di sop ngir jox googu nga ko jox te xam nga ne cofeeluk sëriñ dafa dara gënu koo for ci taalibe bi kon na fonk di jox sa sëriñ te yàlla tax ngir mu sopp la te bu la soppee lu baree bare dana jóge ci moom ñëw ci yow walaw xalilan ak doonte lu néew la sax limtisaalima ngir wéyal li nga xam ne war a da na min annaha ci ne moom ak may tasiru day day yokk day dolli xobba man mbëggeelu ka nga xam ne du dana sopp loolu junjoon naa ko léegi ci xadis yonent bi sallallahu alayhi moom la sëriñ bi di wax noonu maye ak may mayante day tax ak soppante loolu la bëgg wax nee na ndigal loolu yonent bi wax ne deel mayante ndax ngeen soppante kon da ngeen soppante nee na may sa sëriñ ngir nga mu sopp la ndax uh, loolu yonent bi moo ko te boo ko wéeree da nga gis njëriñ li ci sa sëriñ nee na wama loo xam ne raaytawu gis nga ko yamilu muy jàng lahu jëm ci moom fii amrin ci am mbir kun nekkal zaata xarrin di boroomu dàkk lahu ko ñeel loolu waj taxidan na te góorgóorlul de baadu ca ginnaaw ba fii istaal yi ci àggale ko fa inna xusna fi'alin ngir naka rafetug jëf fi ikmaal yi mi ngi ci matalam nee loo xam ne danga gis moom sëriñ bi mu mu mu mu jublu ko mbir mu mën di doon maanaam lépp loo mbir mu mën doon lépp loo xam ne gis nga ne xolam jeng na jëm ci wala ak bëggam jàng na jëm ci ca loola ci misaal ci xam-xam ci jaamu yàlla ci jëflanteem ak nit ñi ci ak dundam ak ci liggéeyam loolu yëpp yooyu yëpp loo ci gis mbir yooyu yëpp mbir mu ci ne foo gis ne fa la ca ak bëggam jàng jëm rek nee na foofee na nga na nga dàq loolee ko jéem koo def na mu ko bëggee. waaw te ginnaaw ba boo ko xamee nag nga góor góorgóorlu ba def ko na mu ko bëggee ba matal ko sëkk ndax jëf ci rafet kat balaa rafet dëgg dëgg dëgg da koy def ba mat waaye soo ko tàmbalee te mataloo ko euh, rafet rafetaay ga day màggi baaxee nga tamit day màggi nee na wakkunte nekkal muxtariman bayit bi ci kanam moom ngay jël moom ngay boolee kun jooju wa kunte nekkal muxtariman di aji warmaal li kulli man ñeel képp koo xam ne taalax aju na bii ci moom ahlan di ay ñooñ abidan ak di ay jaam wa siwaawum ak di ludul ñoom motlaxan mbir muy luñ boyal nee na nga lépp loo xam ne ci moom la aju moo xam ay ay ay mbokkam lañ ay jegeñaayam lañ ay doom soxnaam ay mbokkam wala mu nekk ay ay jaamam wala mu doon laneen loo ne ci moom la aju mel ne alalam ak laneen lu mën doon lu mën di doon daal mut la xan tënkuñ ko ci leen lu mën doon taaj ci moom rek nee na loolu na nga ko fonk ngir jëm moom sëriñ moom sëriñ bi ndax boo demee ci wayi sëriñ bay jaxate mi ngi ko ci wax naan lépp lu aj ci sëriñ rek sëriñ la lépp loo xam ne soxna sëriñ beeg ba ci juróom gi mu am ak këram lépp rek da nga koy xoole jëmmi sëriñ bi jox ko cër ngir jëmmi sëriñ bi nee na loolu na ko def la àllawu ndax lee moom maanaam amaana yejudu laka mu tabe ñeel la mooy mu may la bi nasratin ci ab xol boo xam ne bihaa ci moom tanaalu ngay amee maa loo xam ne turiidu yaa ngi koy nam bi nasratin ci ab xol boo xam ne yuxu nii ka dana la doylu loo mawlaaka sa buur bihaa ci moom xol boobu an kasratin jaddi wulis barik an kasratil kaddi wulis barib coono fakkun kon nekkal muntabihan di aji yow fa nasratul xubbi ndax xooluk cofeel xooluk mbëggeel mina cheikhi mu tukkee ci sëriñ bi ilaa muridihi bu tukkee sëriñ bi ilaa mu jëm ci muritam ba hiyal mazaya mooy ngëneel ya wala ak kawe ga dafa wax ne <clears throat> lépp loo xam daal looji ci moom la dee ko war maal ndax leen boo ko defee mën naa mu xool la benn xool boo xam ne rek ci ngay amee li nga bëgg lépp ci àdduna ak alaaxir benn xool nag xoolu cofeel xoolu mbëggeel boo xam ne daf koy xool jëmale ko ci yow te bi mu lay xool fekk na xoolom sedd na ci yow gudd guy mu am ci ci yow cofeel gu ma sëkk neena xool xol boobu rek euh, yàlla mën na la cee yàlla mën na cee jaare dox sa digganteeg coono bu bari ci àdduna te du tee nga am li nga bëgg te du tee am li nga bëgg nee na xol boobu rek yàlla mën na cee dëgg ba dox sa digganteeg coono bu bari ci àdduna te du te ba noppi da am li nga bëgg lépp ndax nee na xoolu mbëggeel boo xam ne dafa jóge ci sëriñ bi jëm ci moritam nee na loolu nga nit yi morit diwut yëpp ak kawe gi morit diwut yëpp nee benn xool boobu mën nag ko may benn xool boobu kon di liggéeyal sa sëriñ di ko defal lu baax ba xolam sedd ci yow lu am solo la nag xool boobu mu lay xool ngir xool bu sedd moom sëriñ boobu nga xam ne sëriñ bu mat sëriñ la loo lu leen lu ne mën nga ko ci am nee na nekkal euh, la da cheikh fa sëriñ ba kamaytin ni ki am néew udi am boobu degees na ko bay na day xoos yi ci euh, kanamu aji sango ko tenta fi kon nga jëriñu nee na bu fekkee nag dangaa ne ci sa kanamu sëriñ Euh, nee na na nga mel ne euh, am néew bu ñu teg ci kanam kanam ki koy sang rek saa boo nekkee sa sëriñ bul am looy bëgg bul am looy bañ defal bëggu sëriñ bi muy sa bëgg defal bañuk sëriñ bi muy sag bañ nee loolu soo ko defee rek da nga ci li xam ne moom la yàlla baaxee sëriñ bi ci ak mu ne wakkun nekkal way takkoon boo nekkee genre kon loolu mooy laabiri yi mu jëmale woon ci ki nga xam dafa ànd ak sëriñ bi koy yar waaw mu ñëw nag ci ba tey ni nga ànd ak sëriñ bi lay jàngal mu ne way takkun boo nekkee zaata alum bi doon di borom ak xamlu eh, lil ilmi ñeel xam-xam fab taxi kon sàkkul lillaahi ngir yàlla ridal muallimi ngërëmul kii jàngale nee na bu ànd sëriñ bi lay jàngal di wut xam-xam te yàlla tax na nga fexe ba am ngërëmul sëriñ bi lay jàngal te yàlla tax waaw wakkunte nekkal la laa cheikh ka fasab sëriñ kal mamluki ni ki ab jàmbuñ moom tablux kon da nga da jot bi ci sababu loolu moom loolu darajatal muluki darajay buur ya nee na bu fekkee danga nekk sa sëriñ bi lay jàngal dangay ngay mokk rumbux nangu ndigal lool waaw uh, fuñ fu mu la jëmale rek nga jëm fa moom sëriñ bi lay jàngal nee na loolu boo ko defee da nga ci am daraja joo xam ne uh, mooy gën a kawe daraja yi nga xam ne moom la daraja yi moom la buur yi àdduna yi di am ci àdduna ne ko am ca yàlla waaw waalam te xamal bi ana nafaan ci na njëriñ laayu naan dee ko am illaa bi illaa lin dara ci ak màggale rek alama ci li xam ne xaale wax nañ ko bi qadri ci kem sak sëriñ màggal say xakk sa sëriñ tafuusu ngay taxee bi ma ci loo xam ne turi du nga ko nam wa bii te ci moom taxuusu ngay làq al yum na barke ba nee na na nga xam ne njariñ njariñul xam-xam daal dee ko am ci lu dul ki lay nga di ko màggal nee na ni ngay màggale ki lay jàngal rek noonu ngay amee li nga bëgg ci xam-xam bi te ci ngay amee barkeb xam-xam fa kullu ndax képp koo xam ne lam yur di gërëm loo wut say xaw sëriñam fala yanaalu kon du am fii tilmise yi euh, ca ndongaam ba maa li xam ne amale mébét na ko waaw dafa wax ne képp koo xam ne ngay da ngay jàng da ngay jàng ci ab sëriñ te gërëm loo woo boobaa moom sëriñ boobu li muy bëgg ci yow dongam bi du ko mën a amu ko waaw loolu mooy ni ko ni ko mën a dégg fii tilmiis yi maanaam falaa yanaalu cheikhu fii tilmiis yi maa amala nee na koo xam ne da ngay wut da ngay da ngay ànd akub sëriñ bu lay jàngal te gërëm loo ko maanaam defaloo ko li ko neex te yàlla tax te yàlla bëgg lool nee na moom sëriñ ba lu la bëggal bëggal lu baax boo sakkuwul ngërëmam bëgg seddal xolam doo mën a am li bëgg ci yow nee na bal an li fi nekk rubba cheikhin bari waa na ab sëriñ yoo xam boobu day feeñal bi la ulum ci ay xam-xam wala yanaanu te du am man koo xam ne yarkanu ilee day jeng jëm ci moom nee na bari waa na nga gis sëriñ boo xam day wane na ku bari ay xam la te doo gis kenn ku dem ne ko jàngal ma dara la ko waral mooy ba xam-xam bi dafa amul barke ndax ba muy jàng gërëm doo wut ka ko doon jàngal azanallahu yàlla nañu yàlla musal wa yaakum ak yéen ma boole sun min mi ilmin ci bépp xam-xam boo xam ne lam yanfa jëriñu aliman aji xam nee na kon ñu ngi ñaan yàlla mu musal ñu ñu jàng ci bépp xam boo xam ne ku ko jàng du la jëriñ dara loolu nag la koy waral mooy jànge woo ko na ko war a jànge wala mu nekk xam-xam boo xam ne amul njariñ ci lislaam kon loolu mooy jataay bi ñu jagleel jëmale woon ci laabire yi sëriñ bi jëmale ci nga xam ne day ànd ak sëriñ bi koy jàngal ak sëriñ bi koy yar des na beneen àggale nañ ko àggale incha allah ci beneen jataay ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp defal ñu taysir di ñaan yàlla mu defal ñu taxaw liggéey bi suñ boroom defal leen tawfiq ñaan yàlla mu uh, wàcc ay ay ak i musalam ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak i ngërëmam mu wàcc ko ci sunu njiit xaadima rasulullahi sallallahu alayhi wa wa axiru daawana an alhamdulillahi العالمين